tell me waxma dis-moi yow looy xalaat tell me waxma dis-moi yow looy xalaat Nous sommes lundi 14 février bonsoir et bienvenue dans ce plateau spécial la Saint-Valentin ku xamna ni la Saint-Valentin moo tax itam ne dañu jugé nécessaire ñëw tok bégal leen plateau bi tay dina saf sap ak amour dina saf sap ak euh, romantisme l'amour n'est que le roman du cœur c'est le plaisir qui en est l'histoire c'est avec ce plaisir qu'on va vous accompagner durant tout au long de cette émission Duma ci weet ben yoon dama ci and ak sama gaay tay ñom dañu avec les couleurs de la Saint-Valentin gis naa fi blanc gis naa fi noir gis naa fi rouge non du ma nekk di dévoiler bàyyi ma jox leen ñu nuyoo après ñu ràmbal la Kenza ci loo ne. mbaa yaa ngi ci jàmm. mbaa nga ni balaa jeex na. <laughs> dangaa mën nag sama xarit bi. Ah. ma bàyyi la nga souhaité li nga xam ne moo di joyeux fête de Saint-Valentin ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. Kifne TV mbégte kontaan di teew fii sur sa plateau Saint-Valentin mhm. tey nag yaakaar naa dañoo indi spécial Saint-Valentin mhm. war a waxtaan lu bëri mhm. yaakaar naa ne nag damay xuus dama si wéet benn yoon parce que yéen a ngi xam naa si kanam dinaa leen indil lan mooy divorce ak sama gars yi ñu débattre si dafay bàyyi euh, man nag présenté naa sama Valentine moom mi nga xam ne moo di la belle Kenza la charmante euh, Kenza damay bàyyi ki nga xam ni moo di Jengson moom itam mu ki nga xam ne moo di Valentine am Jengson ma bàyyi doxal

Ah, maa ngi sant bu baax ma bàyyi la nga nuyoog les internautes waaw kay salaamaaleykum di ngeen gi nuyoo waaye fii lay bàyyeekoo ci ngeen gi télé ah, maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal di am contentement si plateau bi macha allah ay fête saint la ñu wax c'est la des amours tey bëggante la ñuy wax à la bëggantelisation du noonu. bëggantelisation ca bëggantelisation voilà. ayca di nuyu bu baax a baax kilifa diine kilifa aada yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ba wadul ah, noonu lay jaare di nuyo ñi nga xamante ne bii caabi daf leen féete ginnaaw di leen ñaan yàlla rek yal na leen caabi fetti kanam ba ñu dellu ci seen ay njaboot waaye noonu lay nuyoo ñi nga xam ne dañu tëdd ci lalu hôpitaux yi rek euh, di leen wax yal na yàlla fëgg seen bopp euh, ba ñu delluwaat ci seen sago noonu lay jaare itam di nuyu ñi nga xamante ne bii ñu ngi ci tali bi muy chauffeur yeeg coxeur yi voilà bàyyiwuñu kenn ndax euh, Kifne TV nee naa la mooy caatu télé yi tabaarkalla ndax dafa mujjee génn dafa gën a neex nee naa la Kifne TV dafa mel ni jant jamono ji ñàkk ko bàyyi xel erreur la ba askan bi yëpp aduna international eh, tabarkaale ñepp ngoy baye koy bàyyi xel macha allah. ayca bu ñëk bax la ko tuddé mom mi nga xamni kif ne càppaacol yi la ko tuddé mom bi nga xamni moo nekk fii ci Kër Massar di def lu am solo nee la lu xew lu nekk ñoo ngi ci ñun ñi nga xam ñoo kif ne waaye yamuñu ci. dañ leen andil FK radio waaye ki nga xamni modi KSF Kifna Social Foundation nek du def lu am solo fi nga xamni modi keur Massar mais ma xam nga ni ben carte la yoron te yow la ko sanel man dal joxe na la dal bakan la la jox ku la laal laal ma. tabaarkalla gis nga ko noonu laay introduire rek euh, ginnaaw bi ma nuyoo ba pare rek euh, damay ñëw nag tey ndax euh, buñ nee amour mënuñu wax jalo mënuñu wax amour te waxuñu jalousie ndax ñi nee nañ preuve d'amour la dinañ ci xam dara ah ñii tamit ne euh, faute la maanaam euh, waaw ndax ku nekk na nga koy introduire daal ba tax na doxantu woon nañ ci jàkkaarloo nag askan bi jël nañ seen ay xalaat boole ko ak suñuy xalaat andi ko teg ko ci plateau bi fa yéene leen ko indil yéen suñuy internautes Kifne TV bu ci kanamee rek daanu ci xam dara. loolu defe naa ni ah, dina am solo te dina soxal ñi nga xam ne ñoo di ah, suñu ay internautes tey lépp loo xam ne dafay xew ci amour lépp looy xam ne dafay am ci couple dañu leen koy andil fii ci Kifne TV waaye du ma xuus benn yoon. te bégewu ma ki ñu dalal ñun kif ne dañuy décentraliser pour bége ñi nga xam ni tey ñoo di ay doomu Sénégal ñi nga xam ni ñoo di ay doomu Kër Massar di def lu am solo moom xaleel la xale bu ndaw waaye la mu sarmante dama ko ragal bel ba yàq moom itam. naan ku bell ci Kër Massar ndogay la ku tàq ba yàqu ndogay la li xale jigéen naan je pop tu pop. fii ku bëgg a rek da ñëw ci salon Nogaye également mu nekk fii ci arrêt 54 bi boo ñëwee ci arrêt 54 di dem clinique Yaay Marie. da romb fii salon Nogaye nee naa la déco bi moo lay njëkk a ne la dugg sil ma defal la nga belli tubarkàlla moom itam Nogaye ñi ngi koy euh, béggee bu baax a baax waaye comme ni ma ko waxee tey lépp loo xam ni dafay am ci couple di ngeen ko am fii tey amour lañu wootee te dañuy dem ak yéen jusqu'au bout ki nga xam ni moo di euh, Kenza dina leen indi li nga xam ni moo di euh, divorce nekk lu am solo ñu gis ni moo nekk instant bi nii li nga xam ni moo nekk actualité fii ci Sénégal parce que gis nañ divorce yi ni mu bëree ki nga xam ni moo di euh, Diengson moom dinañu indi amour impossible ki nga xam ni moo di la tigresse comme ni mu ko waxee dina leen indi li nga xam ni moo di jalousie waaye balaa ñoo dugg ci loolu man dama leen indi li nga xam ni moo di amour de jeunesse tey ñu bëri ñun ci ñun ñu ngi tollool ñoo ngi dund suñuy parents muy suñu ay xarit muy waa koñ bi duñu gëm que ni amour la dañuy jàpp ni affaire xaleel la rek alors que am na ci ñoo xam ni dem nañ ba sëy am seen biir amour de jeunesse Jackson également nan nga ko gisee tey ndax am na ñoo xam ne gëm nañ ko am na ñoo xam ne nee nañ affaire de xaleel la rek dafay jàll. base la mais début bi dafay métti parce que ñu bëri dunu ko gëm boole. waaw moom mooy ni nga wax rek amul moom yaakaar naa amul xale amul mag parce que comme ni ko Jameson waxee amul à bas âge nga koy tàmbee parce que yaakaar naa tey nit ki nga xool ba ni daf ko amul xale la amul mag la amul de la jeunesse comme bi nga wax nag moom yaakaar naa moom si bas âge nga koy commencé parce que amul moom. amul xale amul mag daal parce que bëgg bëgg la rek. Mhm. parce que tey jii moomal su ma nee la man dama la bëgg. Mhm. war nga xam ne dama la bëgg. ah tamit yal doon dëgg waay. Ah, waaye li doon dëgg waay. waaye lii yal doon dëgg yal bu ma gént. non moomal daal comme li ma la mën a wax si loolu rek amul moom amul xale amul mag parce que nit day bëgg. Mhm. parce que mbëggeel moom yaakaar naa ne fi muy jógee ba dem si keneen gi l'amour nee nañ c'est un sentiment sentiment bo xamni day jóge si nit dem si kenen kon yaakaar ni amour mhm. day nek lo xamni ci carrément yow bu fekkone sa jëm bok kese parce que xol du bëgg xol bu bëgg du taggo loolu nga waxé non mhm. ok parce que tay bu fa né moma dama la bëgg sama xol moma togn me n'est-ce pas mhm. ah kon looloy mbëggeel <laughs> looloy mbëggeel limi wax ni neex na si xol way tay du ma nelaw ndax li dafa mel ay gént la ci man dal kenn sa dëggalal li ben yoon <laughs> euh, ki nga xamni modi di la tigresse yow tamit euh, li nga xamni modi di amour ok Momar lolou rek na plateau bi ndax euh, bala nga nan amour de jeunesse da ngay dem amour d'abord définition amour euh, amour nek un ay sentiment yoo xam ne c'est abstrait kenn du ko gis à l'œil nu da nga koy yëg euh, ki nga nekkal aussi di sa partenaire di ko yëg ngeen bokk même sentiment boo leen di yëg alors loolu boo ko tàmmee si sa ndaw nga ko mën a yéegee di ko dund xam euh, lan mooy amour exactement ndax yaakaar naa mënoo jékki-jékki rek euh, daal di bëggante faaw nga tàmm ko xam jàngat ki ngay bëgganteel te loolu yëpp ci jeunesse bi nga koy jàngee donc loolu nag tënkoon na daanaka rek plateau bi ndax mbëggeel à bas âge nga koy commencer comme ni nga ko waxee ndax moo tax ñuy wax premier amour parce que dañ naan xol lu ca njëkk des ca te ki nga dañ dañuy faral di laajte ndax ki nga mës a bëgg ki nga njëkk a bëgg muy sa premier amour euh, ndax mën nga ko fàtte parce euh, ci ngay njëkk a yëgee sentiment yu doy yoo xam ne euh, tu vois même doo ko comprendre ci ngay njëkk a euh, yëg-yëg yu am foor yu yu yu extraordinaire yoo xam ne euh, yow sax dalay jaaxal donc ñun ñëpp arrivé nañu muy man muy yow muy keneen ak keneen ku ci nekk xëyoo xëy rek daal di def mariage wala nga xëy xëy rek nekk ak benn copain avant ngay nekk keneen am na ki nga xam ne fa nga débuté fa nga commencé moom nga njëkk a bëgg donc c'est vrai amour jeunesse mbëggeelu xale comme ni ko Jeba waaye topp sa ginnaaw di mel ni mbëggeelu xale ñun ñëpp jaar na nañ ci voilà. amour euh, nee nañ miineel la amour bëggante la te defe naa ni miineel ki nga xam ni yéen màggandoo di jógandoo yéen a fawandoo defe naa ni di ngeen miinante ba ku nekk les moindres faits et gestes sa morom danga nga koy xam te loolu boo leen demee ba sëy xaritoo lay njëkkee da ngeen mel ni genre ay xarit mais tey boo xoolee amour de jeunesse yéen jigéen ñi yéen a koy gën a njëkk a gëma di yéen ñu nekkal. parce que tey Momar dafay nekk ak Tigresse ñu nekk xale di avancer di avancer Tigresse dem ba am nu mu mel. moroomam yi ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi naan ko kii da nga ko dépassé léegi borom 4x4 yi nga war a xool léegi ki la war a mën a may iPhone ngay xool donc moom mu xeeb Momar dem ànd ak keneen est que loolu tamit yéen jigéen ñi amoo leen ci part de responsabilité bu dul yéen. waaw loolu dafay am. parce que ñun ñëpp ku ci nekk mën a ci joxe benn témoignage ndax euh, màgg ak jigéen ak bu góor bokkuñu da ngay xëy xëy rek euh, la am noo mel am nu la yàlla bindee nga doon nekk ak benn mamar mais danga koy xeeb wala ñi ngay àndal ñoo la naan yow lan ngay doyee cuuj bi wala lan ngay doyee kii euh, ñeneen ñi naan la kii lan la la mën a apporteel man je dis non parce que xëy na momar moomu dina am ben xolew yërmande ci yow wala dina am ben compréhension bi muy am ci yow donc kay ji ka ngay xëccu ngir muy am ngir di am ci ngir di am lo am ci mom euh, man amana sax euh, ni ngay nekkee ak moom tu te sens à l'aise au lieu ki ngay dem di xooli ji lenen te dañ naan cuuj day xam lekam euh, sinon rek dina lek li nga xamné daf koy sonal ba man na ci jalé loru donc jigen ñi mom wax deug yàlla momar jigen la nak voilà je défends toutes les femmes parce que je suis fii mais côté boobu moom franchement c'est RAS dañ ci ñun ñëpp ñoo ci yem. da ngeen doy waar jàng ñun góor ñi lan la ñu dundee loolu. léegi génn ñu koy wax lu ci xol lay nekk te lu nekk ci xol nag day feeñ ci kanam day doon loo xamante ni kenn du ko mën a nëb. Mhm. donc amul leen am lu ma bëgg bu paree da ngay dem. soo bëggee da ngay war a ba yëpp xam ne yow kii nga bëgg. Mhm. yaa ngi sax ñu dañ la si jàppale am na dañuy jël ci exemple. Mhm. ay comprendre tey jii nii da ngay génne nit ñu jékki-jékki benn moment am loolu dañu ne o daf ko dépassé yaa ngi koy demee noonu. non non je suis pas d'accord xam nga tax fekkee jigéen am na ngor. ah am bëgg-bëgg am projet de vie laa waxee. tey soo bëggee ji ak nit.

damay faral di wax que ni euh, dama len di jox ben anecdote dafa am xalé bu jigen bo xamni dafa nek euh, ci li nga xamni modi mi comme niñ koy am trois góor ño xamni dañu ñew di bëgg mom mu tok ci nek ne len tok len ci buntu bi ngeen ñew kenn par kenn am ku ñëk ñew mu ne ko lan mo tax nga bëgg ma koku ne ko da nga rafet da nga mëna a te koñ bi ku nek rêvé na and ak yow mu ne ko bëggoma da nga ma fa kenen ñew ne ko lan mo tax nga bëgg ma mu ne ko dama la bëgg téral ba say morom nga mel ni say morom parce que gis naa ni carrément ku la yor xam ni yor na jigéen mu ne ko bëggoo ma yow ni ma mel nga bëgg ki mujjee ñëw ne ko la moo tax nga bëgg ma mu ne ko xaw ma man mii sax mënu ma la expliquer la moo tax ma bëgg la mu ne ko yow mi ma bëgg donc amour nekk na loo xam ni kenn mënu ko expliquer da nga koy yëg te defe naa li nekk ci xol moom la ñu mën a wax amour bu ñëwee raison dafay xaar li nekk ci xol moom lañ mën moom lañ mënta wax mais li nekk ci xel nit ñëpp mën nañ ko expliquer donc amour du affaire xel kenn sax demal. ci xol lay dem lu jigee ci xool ci xool lay dem kenn saa yéen jigéen ñi tamit dañ leen faral di wax loolu parce que yéen dañuy nekk ak yéen à lu ñu am bokk ko ak yéen korité wala tabaski dafay ñëw ñu bàyyi suñu bopp defal leen bis boo leen demee ba commencé am noo leen mel seeni xarit génne leen ci influence beeg yooyu ngeen dem bañu non moom yaakaar naa ne loolu moom ku ko comporté daa fekk ni ki da ngay soog a door bëggoo ko woon mhm. mais yaakaar naa nee naa la mbëggeel bu dugg si xol dem si xolu nit yaakaar naa dara warul tax nga bàyyi loolu parce que man si sa Kenza laa xam de man moom su ma la xasee ban yow la yow la xooluma li nga am xooluma li nga ñàkk loo am ma bokk ko yow loo ñàkk ma muñal la ko parce que yaakaar naa loolu mooy mbëggeel mbëggeel jàppalante la parce que yaakaar naa tey jii su ma nee la yow ma dama la bëgg te jàppale wu ma yàq mbëggeel gi may woote nekkul si yow te jamonoy léegi jii comme li nga wax tamit bari na fi am na ñoo xam ne nii seen xarit ñoo leen di influencé ni la yow lu may toppee moomal bi moomal mi nga xam ne amul sax lu mu lekk amul lu sukar baraada bu ko defee yooyu noonu moo lay traumatiser sa bopp bi ba nga découragé wu mhm. mais yaakaar naa bëgg bëgg dëgg mhm. su fekkee ne man si sa Kenza dama bëgg Momar mhm. dara kenn mënut a wax ba ma bàyyi Momar man loolu laa jàpp exemple bi Kenza di joxe ci man daal man neex na ma tey émission bi daal bëgg naa ko daal dama ko doon faral di wax wax naa ko ci sama benn vidéo euh, dugal ko li nga xam ne moo di TikTok benn vidéo TikTok bu ma defoon di ko wax ba moo nekk sama plus grand succès sax ñëpp jëlaat nañ ko te xamuñu sax kan moo ko wax maanaam di nga nekk ak nit mu bëgg la lool te du la yemale ak dara waaye doo ko teg fenn bu dee jigéen nga ne sama dof bi parce que loo bëgg mi ngi ciy dox bu dee góor nga ne sama yambar bi parce que kaasul dara mi ngi la bëgg ba mu jeex ñàkkul fayda daf la bëgg te yàlla rek tax te tànnkatu daal boo gis ci ay carax lay mujjee donc loolu ñëpp reprendre ko te xamuñu ni sax man maa ko wax a fait. mais Momar foofu noonu dama lay dogee. parce am na xale góor yoo xam ne Momar pour se dire la vérité nii am na si loo wax tey. mën nañoo gis benn la tigresse mu jongo ma car la gis nga tey lim belli xam nga tàq ba yàqu hmm. tey benn euh, sérif toog fee gis mu sañse belli ah, ah la tigresse mi foog ma dem xool nu mel comprendre nga hmm. mën na ko financer ay millions te fekk na bëgg gi muy wax bëgg ko hmm. dafa am lu mu si moom tey ji li mu xemmen bu ko gisee rek day day disparaître duutu ko kii mais ma wax la benn secret ci amour mbaa xam ngeen ne amour day feeñ ci ay bët gis nga góor dëgg bu taxawee ñëw di la doxaan noonu lañ ko mën a waxee ndax noonu la ko Wolof di waxee fixé ko muy wax nit bu la bëggee buy wax ay bëtam dafay mel ni luy tàkk loolu la ñuy wax éclairage de l'amour l'éclairage de l'amour foofu la éclairage bi di nekk foofu ngay njëkk a gisee ni kii daf ma bëgg mais koo xam ne waxu la dëgg forcément war nga ko mën a xam ki Tigresse mhm. parce que euh, sànq sama doomu baay bi Jackson dafa wax lu am solo mhm. mais man d'accord ma ci nag ak moom mooy Je bu amee dërëm na a bokk ak yow man mhm. je dis non parce que amour de argent amour du matériel l'amour ça doit être naturel mhm. voilà parce que nit bu koy bëgg da naturellement parce que man loolu laa gëm man ci maa laa mhm. damay naturellement voilà parce que nit euh, soo ko bëggee am leneen looy xaar ci yow rek ci moom rek amour ba des na voilà euh, loolu nag influencé xale yu jigéen yu bëri léegi ba buñ nekkee ak nit defalu rek ah, alors que c'est pas ça euh, benen bi moy euh, sànq wax nga ko amour de jeunesse la wax mais lu ci bari yéen gone ñi yéen ko yak mm-hmm. parce que tay damay nek ak ben couple yi ñu débuté ci temps booy ba légui mm-hmm. mais yow yow jengson dalay lèr ne Tima mi diw la nekkal mais da ngay ñëw forcer proposé Tima mm-hmm. Tima ne la carrément dama nek en relation dama nek ak diw nga ne auto bu deful dara duma ma fa dugg wala suma xamone xamoon ne nekkoo ci dara duma duma duma la ñëw di la aborder. di nga moni a gancé mën a gancé mën gancé ba. xam nga xelu jigéen ndeysaan soriwul ba tima relation bi nekkoon danaan ah kon lii aw ma ci dara te jariñu ma dara xaaral ma dem a seeti Jengson ba xam bu ko defee yow dangay ngay perte de ndax amul véritable bi nga nekkaloon da nga koy perte mais Jengson mais gëmal la ni dalaa laa bëgg alors que c'était juste euh, dafa am lu mu bëggoon ci yow rek su ko su ko pare pare na ci mm-hmm. am na ñi nga xam ne dañu dañuy iñaane maanaam tey da ngay nekk ak sa copain ngeen nekk amour bu jeunesse ngeen nekk di dund euh, nice lu mais daf koy daf koy kii dinaa ci ñëw ci kanam ndax mooy nekk moo nekk sama thème mhm. mhm. daf koy daf koy influence daf koy metti ba ñaar ñi xaar alors que dundu jeunesse moom amours euh, jeunesse dafa pour nga continuer ko réussite ba dem mariage du ma ne ne mais euh, lu la ba tey au euh, moment mhm. da nga wax aussi benn wax bu am solo mooy bi nga ne bi nga ne bu ñu bu nit ñi ñu ñuy mhm. mhm. euh, influence boobu tey jii ba ci sama jigéen gis jub mhm. damay gis euh, euh, muy copain bi neex mais man dama koy dama koy pour copain parce que man dama naan alors que je serai la mieux place pour ma nekk ak foofu tellement amour li nga ne bi buñ ci wax ba at bi fi

Mm. Mm. Mm-hmm. yaa mm-hmm. mm-hmm. ngi mais est que tey Dieng mais mbëggeel da xam nga sànq non da nga contredire sa bopp dafa am fu ma bëgg a wax ak yow est-ce que mbëggeel ak raison mooy bi ma la doon wax sànq Mm-hmm. reyantee mais man nag euh, je suis pas d'accord ci benn côté bi nga wax mooy euh, nit ki boo ko yërëmee di nga ko bëgg mm-hmm. man pour man yenn saa yi nga yërëm nit bëggoo ko mën nga dem nag ba bëggi ko mais yërmande dafay wàññi doole parce que tey ki nga xam ne di nga ko yërëm kooku dinga ko baax ragal sax mais doo ko bëgg wax yenn dëgg yu koy blessé parce que yërmande boobu moo tax looloo tax olof naan yërmande dafay wàññi doole tey bu ñu nee Saint-Valentin du ñu bëggante rek ba ci xaritoo ak yëpp muy amitié muy lépp loo gis bu ci yërmande duggee rek doole bi dafay wàññeeku en fait góor ki mhm. Mhm. mais pour man gis mhm. di yéen yéen da leen di jaral lu ne sànq Momar wax na ko nee na euh, nit bu la bëggee buy wax ak yow euh, da koy xool mais góor ñi da ngay gis ñoo xam ne da di jaral ñuy jooy alors que la ñuy wax du dëgg ci ñoom bien sûr mbëggeel dafa war a change nit parce que di nga gis ñaar ñoo xam ne ci koñ dañuy taxaw mais ki nga xam ni moom la bëgganteel keneen ku ñëw bëgg wax ak xale bu jigéen bi wala mu bëgg aborter waa koñ bi ñoo koy njëkk a wax eh bul laal bu la fi kii fekkee wala kii de boo ko waxee li lim lay tontu du neex parce que kii lay génnal am na solo li nga xam ne tey moom ngeen indi woon mais am na leneen loo xam ne préparé ngeen ñu ko ba tey yéen ngi ci Kifne TV ci seen spécial euh, Saint-Valentin waaye balaa maa dem foofu ku nekk bëgg naa laa poser question avant ñoo dem ci seen li xam ne moo di rubrique yi sur 5 la ma xool ba xam ñaata points ngay marqué ci Kenza laay njëkkee danga may tontu. waaw wala déet. Uh-huh. kenn saa mës nga bëggante. man am nga benn point <laughs> mës nañ la wor yow mës nga woor. mës nga dajale ay copain. non man nag ah. kenn saa bu bëggee nu mu mel. man su ma bëggee damay dof. dof ci moom. damay dof man du bëggee damay dof parce que daf may jaral lu nekk. ban qualité góor nga gën a bëgg. bëgg naa moomaat góor goo xam ne du ma fen mhm. góor goo xam ne lu metti metti mu wax ma li nga xam ne nii mooy réalité mhm. góor goo xam ne nii day fidèle parce que xale góor yi léegi sii da yàlla xam doy na yàlla xam doy na dañoo infidèle mhm. moo tax léegi yu mel noonu nag mooy dem ba yàq sa xol ba yow dootoo mën a sax ci nit xale yi góor yi dañu infidèle góor ñaa ngi koy jiñ jigéen ñi jigéen ñi di ko jiñ euh, góor ñi waaye foofu euh, duñ ci taxaw ki nga xam ni di euh, la tigresse ma laaj la yow question sur cinq la tigresse yaa ngi amour bu neex da ngaa fidèle wala da nga infidèle tu es infidèle raison pour laquelle ma bàyyi mu sedd kon moom question yi fa laa koy yemale ndax moom ci boppam nee na naa bàyyi mu sedd ay eh, Jackson ma ma ñëw ci yow Jackson ah, yaa ngi bëggante mës nañ la war mës nga am déception amoureuse mës nga am déception amoureuse mës nga dund amour impossible bëgg nit te seen relation mënul nekk <laughs> Jackson ban qualité jigéen la gën a bëgg ci àdduna kon euh, dañuy jàll. su ma la nee dama euh, dama infidèle dama infidèle euh, si parce que voilà mais comme bu ma la nee mu sedd ci question bobu la rek. question infidèle bi la voilà ci question infidèle bi la mën naa continuer kon euh, yow sa premier amour. Mhm. ba tay yéen a ngi nekk. non non non nekkatoo leen. mën naa laal laaj si c'est pas indiscret la moo leen boole mbaa bàyyi woo ko dem yow tamit. waaw comme nii rek ma ne ko comme noonu rek. Mhm. comme noonu ah, rek waaw nekk si mhm. yeneen moom xalé jigen ni nak ma jox len ben secret yéen ñi nga xamni ne yéenay góor ñi ñuy seetaan ma jox len ben secret ci ñom xalé jigen ni dinañ am ku ñu bëgg de mais 100 lañu yor dañuy jël 50 yi jox ko shérif yeneen 50 dañ koy séddale dañuy jël 25 jox alamin jël 15 jox nitro jël 10 jox am jël 5 jox ki nga xamni modi sama waa tok donc yow mi nga xamni ya yor 50 yi au lieu nga def no récupérer sa yenen pourcentage dang fay nek c'est que c'est-à-dire c'est parce que xam nga ni yow lañ bëgg lijjanti leen seen 50 pour cent téye ko seen loxo jigéen du ay fo. suma bi nga xam ni moo di euh, sam prof français nekk suma yaay daf ma daan wax la femme la femme est un bijou qu'il ne faut jamais laisser euh, ternir donc jigéen boo nekkee moom yaa koy euh, li nga xam ne moo di comprendre. loolu itam am na solo waaye dañuy dugg ci yéen ñi nga xam ne moom ngeen ñu indil tey damay njëkkee ci nga xam ne moo di la tigresse la tigresse mu mel ni tey dañu ñu indil li nga xam ne moo di jalousie ci am. Mm-hmm. indi li nga xam ne moom mooy euh, jalousie loolu la ko français di wax waaye olof mu ngi koy wax euh, li nga xam ne moom mooy fiiraange euh, donc ci la ñuy waxtaante ndax mënoo ne mbëggeel te fiira amul fiiraange ndax am na ñi nga xam ne sax dañuy préféré naan mbëggeel mënul ñàkk fiiraange ay ca ci loolu la ñuy débattre nag ba tey nee naa leen lu ko dégg di gën di xóot rek tabarkaale ngeen di gën a am ay sujet yu doy waar sujet yu neex ay ca jamono ji nag fiiraange gi Momar mu ngi toj dëkk bi mu ngi toj réew mi ndax gis nañ ci dañu dem ba fiiraange googu di andi li nga xam ne moom mooy violence ci dëkk bi diggante ñaari couple ak diggante mag ak rakk diggante sax ba ci entreprise yi nga xamante ne bii nit ñi dañ fay liggéey ndax foofu yëpp euh, mënoo faa génne Saint-Valentin ndax foofu amour tamit dafa faa war a daw diggante ñaari xarit aussi dafay am li nga xam ne moom mooy fiiraange ndax lu baax la wala lu bon la ndax défaut la wala preuve la euh, ay ca loolu nag dama leen koy bàyyee daal di koy débattre mu mel ni am na loon ci préparé loon ay seen avis nag dañu dañu duggoon ndànk nak ci askan bi euh, jël seen xalaat boole ko ak suñuy xalaat tegal leen ko fii ci kifni TV ñu dem jëli élément bi rek daal di dellu si waat. ndax fiir naa ah oui bien sûr pour multiples raisons qui aime bien châtie bien et c'est un sentiment très normal oui parce que loo xas ba moom moom bëggoo keneen téye ko n'est-ce pas du dëgg. waa tout excès est nuisible loolu loolu fi wax tout excès est nuisible ah bëri na ay cas yoo xam ne moom buñ fiiree xamnañ li tax ñu fi mais pour moi bo xasse ba mom dara mom carrément jarul nga ci nek di fi wala des trucs comme ça da nga xam sa bop rek xam fi nga fiitu kese simplement. man ça dépend rek. ça dépend si li nga indi rek après loolu lañuy ñuy xool pour mëna xam ba xam fiir nañ wala fiiruñ. waaw pour man fiiraange bu bari mbëggeel la quoi mbëggeel mooy wane loolu parce que dégg naa ñu naan mosoo ma bëgg parce que mosoo ma fiire pour man nit boo ko bëggee il faut nga fiir quoi parce que loolu signe la boo xamante ne. amour moo koy def quoi nit bu koy def du ànd ak sagom parce que moo ak mbëggeel ñoo ànd quoi. waaw fiir mën na tax parce que boo xasee ba bëgg rek raison amatu fa quoi parce que lu lay lu lay guidé doo xam am na mbëggeel yoo xam te yàlla moo koy def am na mbëggeel yoo xam te ne yaa ko cherchel sa bopp mbëggeel yoo xam te ne yàlla moo koy def si nit mën nga fiir ba dépasser les bornes sax te doo ko sib quoi xam nga loolu yàlla moo koy def. mbëggeel boo xam ne yaa koy cherché mën nga maîtriser sa bopp mais loo xam te ne yàllaa koy def doo maîtriser sa bopp quoi ça vient naturellement waaw man am naa gel yoo xam te ne dañ may fiire chaque jour mais loolu dawul sama yaram quoi <laughs> waaw man moom yooyu dawul sama yaram mooy loolu. man fiir naa kay fiiraange bu bëri baax na kay xamal la moo la nit bu ngeen ànd man dèjà man li may dund laa wax waa man ki may tëddal sax duma ma ko wóol waxantuma laa nag keneen ak keneen kon xam nga ni fiir fiir fiir lu am amul kenn quoi koo xam ne nii nii waru laa mën a jaaxal. ah ça arrive parce nit ki xamoo quoi koo xamul nii nii da lay nëbb ko ku merci beaucoup euh, sëñ Ba reportage euh, bi ñu tegal léegi am na solo ci jalousie mi nga xam ni kii di euh, la Tigresse moom moo ñu ko indiloon li nga jëli woon ci mbedd mi mu mel ni am na solo lool. ay ca gis nga ko nag askan bi ñoo ko waxal seen bopp muy fiiraange gi métti na góor ñi dañuy fiiree jigéen ñi métti na torop dañ leen di topp ba ñu sës duñ leen maye dara tabarkaala ah, muy ci entre copain copine maanaam ñi nga xam ne defaguñu seen mariage ah, surtout côté boobu nag fiiraange gi fa ëppee ñi nga xamante ne bi aussi dañoo nekk ci seen néegu sëy te yor ah, tabarkaala ñaar ba ñetti jabar maanaam du ci soxna yu xaw a bëri sax foofu nag fiiraange gi c'est catastrophique du ci mel ni aaw ak ñaareel di sa bopp sa morom ku nekk di wane sa a bëgg mu nekk yëf yu doy waar ba euh, jiyee façon jiyee yu ne di fa am. kilifa ti kilifa yi de euh, tareetuñu li nga xam ne moo di sabisma ku ci am doom bu tudd Moussa de boo ne suuf Ibrahima wa Moussa keneen ko mer ne da war a wax Daawda ah lii tamit duñ ci wax. ah waaw loolu yëpp nag euh, boo ko gisee nag fii daa ngi pour man base ba la parce nit boo ko bëggee jarul fii de man man man du ma nit wala lu mënul ñak parce que nit boko bëggé bëggee da nga koy wóolu. parce que mais la confiance n'exclut pas le contrôle hein si mais nak euh, euh, jalousie bu ëpp da fay yàq mbëggeel. Mhm. dafay yàq mbëggeel pour pour te ma nettali benn histoire ci man man dama amoon copain boo xam ne même bu dalay woo bu la woowee nga nekk ci toilette yi di sangu sax décroché ko boo ñëwee daf la naan foo nekkoon euh, lu tax jëloo sama appel kan nga nekkaloon soo amee gan mu bëgg a xam gan bi ndax góor la ndax jigéen la nu mu mel nu mu toll nu mu tudd alors que dafay dem ba daf lay énervé ba yow da ngay mujjee obligé euh, doo gis lu dul arrêté relation bi parce que da ngay jàpp ne kii daf la daf la daf la daf muy man muy yow muy keneen war nañ ci mën a bàyyi xel bu baax a baax war na ci mën a def ay jàngat war nañ ci mën a ay tirer ay leçon bu yu baree bari ndax chaque jour mu gis euh, dégâts yi ñuy def chaque jour mu gis ravage yi def bu mel ni jalousie daal euh, Omar mu ngi noonu. Mm-hmm. jalousie euh, mi ngi noonu man nag dama leen di wax ni que man dama fiir ba yàqu mais bu ñu nekkee boo amul seetlu dëgg doo ko xam. parce que du ko wax parce que damay jiital sama raison au lieu de sama xol parce que damay jàpp ni yow mi ma nekkal am nga ay nit ñu la bëgg yow mi ma nekkal am nga ay xarit man bu ma nekkee yow am na yu bëri dama koy bañ ba ci whatsapp moo tax du bëgg sax ñu nekkandoo whatsapp parce que dama fiir man ba ci xarit sax man bu ñuy ànd du ma bëgg nga ànd ak keneen yàlla def na loolu mais duma la ko wan parce que tamit am na loo xam ne ay détails la te détail dafa yàq li nga xam ne moo di relation fiiraange googu euh, kii si sa kenn mooy sama défaut dama fiir mais yaakaar nag fiir bu ëpp comme ni ko kii waxee day day yàq lu bari parce que tey nee nañ sax ku bëgg fiir mais à condition mu am limite quoi parce que tey jii su ma nee man dama bëggante ak sama copain comprendre nga comme ni ko kii waxee jox na benn exemple si moom tey sa copain loo man a loo loo def mu bëgg koo yëg foo dem mu bëgg koo xam xam nga loolu tamit bu yàggee relation bu yàqu laa fi gis mm-hmm. parce que tey ku mel ni Sista Kenza mënoo koo contrôler mm-hmm. li naan nit moom yaay contrôler sa bopp mais bu fekkee ne man fu ma dem nga teg ma bët Fatuma bu yàggee dama naan kii daal dafa may déranger mm-hmm. damay mujj bàyyi relation ba demaasi leneen waaw ku bëgg nag fiir moom ku bëgg fiir vraiment Diengson euh, fiiraange googu exactement yow da nga fiir wala fiiroo mais fiir yow exact nan nga koy dundee ak lan nga ci gis. kenn du ko dugal. fekkee bëgg nga ko mën naa wax sans continuer wax preuve mais na yam quoi en plus mm-hmm. nga xam loo koy loo koy loo koy loo koy organiser parce que tey jii mu nit mënu bëgg nga koy fii ba pare di ko yóbbu fii topp ko fii yóbbu fii non non mm-hmm. nit ki ak lu ko mënti mën ñu bëgg su defee ay dégâts wala nga gis ko mu def lu neex waaye ba lépp seet mm-hmm. parce que xuloo mbañit la am ku ci nekk lu bon rek nga jël sànni sa loolu donc man je préfère ma toog quelque temps ñu déggante di waxtaan ci beneen affaire bu lépp passé ma woo boobaa la lay gën a mën a la xuloo jalousie preuve d'amour la dañu koy wax mais bu ëppee baaxul parce que boo nekkee nit di ko firé yenn firé yi bu yàggee ñàkk confiance ci moom euh, moom lay durool ki nga xam ni tey moom nga nekkal wan ko loo xam ni tey dina la rus a def yenn yi wan ko loo xam ne tey bis bu demee fenn yow lay njëkk a xalaat bu dee góor war nga wax ko jigéen bi wax yoo xam ne papaam wala frère am sax du ko wax ba tey jii bu demee fenn bu naree def lenn yow lay xalaat ne ah diw mii bëgguma séntu fii diw euh, bëgguma séntu fii donc loolu moom mooy tax moo gën fiiraange pour man parce que yenn fiiraange yi ñun ñëpp a fiir nit koo gis fii dafa fiir mais am na yoo xam ne ay détail la te amul dafa nekk loo xam ne fleur la dañ ko war di arrosé amul dafay dee comme ni fleur di deewee amul dafa yor bakkan comme ñëpp ñun ñi nga xam ne ñoo nekk nag ñoo koy dundal ci kaw wàññi benn fiiraange gu metti yi joxante confiance ba pare comprendrante nit nit kese la tey ku nekk boo sañoon ki nga bëgg ni nga bëgg mu mel lay mel mais ku nekk ak li ko yàlla bindee te nit boo ko bëggee da koy bëggee ci ni mu mel mais pas yow ci comme ni nga bëgg mu mel tolérance bi exactement war na mën a euh, li nga xam ne moo di am ki nga xam ni moo di euh, Wala Dieng Dieng ñëwal balaa muy tëj

dafa bëri ay façon bëgg dafa am bëggante am bëggandoo am ndax euh, ki nga xam ne moom dafa bëgg moom kese kese kott moo bëgg ñi nga xam ne dañu bëggante ñaari nit la kii di jox kee di joxe euh, ñi nga bëggandoo nag mooy gis benn kenza buy dem rek tarki xel la yàlla am nu mu ko bindee ñëpp sëmbaxloo nga ne it dawit da ngay sëmbaxloo su boobaa lu la fa dal yaa ko tooñ sa yaa ko teg sa bopp olof bi nag dafa dafa dafa xaw a des su boobaa lu la fa dal rek yaa ko teg sa bopp donc fiiraange dafay dugg aussi comme ni ma ko waxee woon sànq rek ba ci bureau yi ba ci ba ci bërëbu liggéeyukaay Euh, place nga ne ala kuli al dama koy am mu jaral la ngay def lu ne loolu aussi jalousie la fiiraange la nañ ko nañ ko éviter bu baax a baax ndax yàlla moo maye te yemalewul day dem ba ci diggante wéyjur ak doom donc sa doom voilà nga koy fiire ba moom su narul woon def lenn sax bu génnee danaan ah comme gisuma sama papa gisuma sama yaay xaaral ma profito xale yu jigéen yu bëri amaana Euh, def nañ naka dul noonu neexu leen mais fiiraange gu metti gu leen seen wéyjur yi teg euh, moom moo leen ko andil donc ñu mën ko fekk ci côté bu ne ñu mën koo euh, catégoriser fu nekk phéno mu nekk phénomène boo xam ne tey jii foo fëgg rek ci Sénégal liñ naan maladie wu ñu mag ñi maanaam troisième âge yi maladie wu ñu mag ñi la foo làmb rek day metti mu nekk mu mel ni foo fe foo dem ci Sénégal rek wala foo dem ci àdduna bi rek di nga fa fekk li nga xam ne moom mooy jalousie dans tous les sens nag bi ci ci bi ci ëpp nag mooy ñi nga xam ne dañoo ne ci néegu sëy bu monsieur wàccee nga bëgg de décoder téléphone am xool naka la yendoo xool ñi ko doon woo xool ay boîte message am bu boobaa la loo fa fekk yaa tooñ sa bopp ndax nit loo xool ci moom. mais monsieur léegi neexut a jàpp parce que da gis mu nekk kat waaye kenn ki da ciy def moodu mécanicien ki ci des mu def ci abu tailleur donc nan ngay comprendre en fait. Euh, mais nag parfois yàlla bu la naree euh, weer rek da lay weer di nga ci di ci di nga ci teg euh, bët li nga xamante ne bii kooku dootul am li mu mi mais yow yaa ko cherché comme ni yow monsieur taamu na la ba takk la am na fu mu la teg mais li ci des bàyyi ko sama genre yi nag waaw waaw bàyyi ko sama genre ñu doxal. jabaru Bastion mhm. benn dafa boo mu ne ko mais nan nga koy dundee mu ne ko man lañ takk maa toog maay sëy loolu mën naa ci lu ne jabaru Bass Thioung dafa am classe dafa am personnalité donc jigéen am na loo xam ne doo ko mottalee ay wax gis nga couple du wax kese tey sali suñ ñun célibataires yi ñoo gën a sonn dangay ñëw bëgg lépp nga wax ko wax deux heures de temps appel ngeen gisantewaat bëgg a wax alors que bi moom bu wàccee takk sa journée la lay laaj nan nga ko passé ku nekk raconté ce journée morom Bo amé le fait que nga dans ses bras rek yow lila la won yépp euh, tu te sens sécurisé mais du lépp wax la amna lo ay nga euh, plateau bi ñu bàyyi la euh, nga tëj ndax bu ñu naree wax ci jalousie defe naa ni fii la ñu. voilà dafa yaatu ba ndax bëñ buy metti la foo dem rek am na fa donc euh, jalousie moom liñ ci buñ ci doon wax euh, fii ba 14 février 2023 fi la ñuy fi la ñuy fekkaat donc liñ ci mën a wax bëri na mais dañ koy dañ koy dañ koy jëluñu jël li nga xamante ne bii mooy lu positif lii ñu ñu jël ko utiliser ko li nga xam ne daf ci négatif ñu jël ko tege ko nële parce que pour man nit soo ko bëggee yenn fiiraange yu ëpp yi warul mën a nekk ndax ki la taamu takk la andi la ci kër ngay daagu non kooku deseelatu la dara loo ko fiire fiire tey bu bëggee su fekkee musulman la am na droit takk ba beneen jabar am na droit takk ba kat te góor ñi sànq wax nga ko nga ne euh, kenn mënu fiire effectivement kenn mënu fiire ndax seen bopp yee raw konkorong dafa wow kenn mënu a fiire te du la ñu dugg di wuy téléphone ñi génn ne xarama seeti sama copain bi ñu demee fa la ñuy galayaabe ba doyoon soog ñibbisi donc nañu nañu rafetalaat bu baax a baax rek euh, ku ci nekk di bëgganteeg sa waay na nga jàpp sa waay fukki loxo ak juróom ñaar gën ko bi amul sens bu la defaralul du bu la yàqalul du la defaral donc koo ci nekk rek jox ko confiance ba mu mat moom bu yàggee au moins sax dina am lu mu lay rusee au moins dina am fu mu la teg donc nañu éviter waat jalousie bu metti bi nag mën nag baaxul ci benn côté mais na yam nañ ko wàññi bu doon 100 pour euh, nañu jalouse di pour cent rek. kontaan ci moom euh, bu baax a baax la nee naa la li moon am na solo waaye buñ ci naroon. Euh, taxaw fii la ñuy fanaan waaye dafa wax lu am solo du ma dem ci beneen rubrique te passé wu ma loolu dafa wax 14 février 2023 ma jël ci ñaari décision yu ferme fii 14 février 2023 ñaari seet war nañoo wàcc fi nga xam ne moo di kif ne de gré de force kenn ki turam bee lay commencé kooku daa war a takk Alaaji Baara dafa war a takk fii 14 février 2023 ki ci des ñëpp xam nañ ko Chérif 14 février moom itam. da wara a ñun dañu ñun ñep ay célibataire lañ bu ñu àndee mel lu kenn xamul ma sha allah. lutax parce que comme kifni TV dafa ñew nek caatu télé yi tabarkaale di PDG bi nek caatu caatu PDG yi ci Afrique de l'Ouest ah donc c'est normal nak mu wara a daagu ànd ak madame. tamit te dafa ah, bëri mhm. a ndax yow sa kii bi dafa xaw a sensible. damay ñëw ci ki nga xam ne moo di euh, Dieng nga indi ñu le grand suñu amul impossible am na ñoo xam ne bëggante nañ. dañoo doy waar ñii. mooy que xam nga tax a saa yi mu wàccee ci laa bëgg mu gàttandu ma lan ngaa mu ma ci laa bëgg mu may reetaan ma fàtte coono liggéey su ma xëyee ci laa bëgg mu bisu ma gunge ma ba dem liggéey bi ci laa bëgg mu bisu sama yaay doon da ngay gis yow Sénégal bu koy yàq ay détails ak Sénégal xam nga mooy lan kii jéewal la wala géex la problème de caste waaw wala kii nii wala tey kii nii am na wala kii amul

le plus souvent lool sax moy indi problème parce que ñaan dañuy bëggante bañu dem ba nga xamné sey rek mo ci des ñu leen ni wax né euh, bokku leen euh, waasu ba waral duñu duñu duñu duñu sey euh, problème bobu nak likoy indi bari na xeyna suñu mami lool lañu gëmon mais jeunesse su bi ah gëmuñu lool ñom bëggel lañuy dund mbeugel bu sincère nak deug yalla mbeugel bu sincère lañuy dund lo xamné du du alal du dara du alal du dara mbëggeel rek la waaw loolu moom seetlu naa ko ci li may jox d'abord les parents parce que man parent la li ma leen di jox mooy euh, ñuy déglu seen doom yi surtout parce que tamit ñun ñoo leen jiitu ci mbëggeel ñoo leen gën a xam lan la te lu jóge ci xol ci xol rek lay dellu te wax dëgg yàlla nit ki surtout jeune bu xasee ba bëgg dootul ànd ak sagoom donc li war parent bi mooy di déglu di ko jàppale di gunge baña strict bañ ko forcer ci loo xamanteni xeyna xëy na ñoom gëmatuñu loolu waaw côté boobu da la xamne mom lay diggal parents yi ñu jappalé seen doom yi déglu leen euh, parce que mbeugël mom man japp na né ay gëwël ak ay gër lolu amu solo li am solo mooy ñaan ñi bëggante mëna mu muñalante ngeen won won leen lan moy mbeugël ak nan la ko nit wara dundé ndax ñoo leen ci jitu lolu da lay diggal euh, parents yi euh, bu dee suñu doom yi wax dëgg yàlla lima leen ni diggal mooy des fois bul déglu sa xor rek bul deglu sa xol rek na nga and ak xel aussi parce que mbeugël tamit xel la euh, bo topé sa mbeug sa xol rek daf lay gañ te aussi tamit nit ku né da ngay xol lu baax nga bëgg ko lo bëgg-bëgg nit ki da nga gis né ki kat sama mbeugël ak mom jëmelu mo fu baax da ngay sét li gën ci yow nga def ko man daal lay digal xay té ñuy déglu aussi seen wajur te xamné lu mu metti metti lu baax rek lañ leen bëggal ndax euh, nak wék na doom ja waye bañu ko euh, lol dal la ci la leen di digal ñuy déglu seen wajur yi te lu baax rek lañ leen bëggal Ah, man lu ci sama point de vue mën naa ni bari na mën naa ni bëriwul parce que man lépp dama koy delloo ci parents yi quoi parce que gis nga gis nga nit kenn du ko tànnal ku muy sëy ku muy ku muy sëyal parce que sëy dafa nekk loo xam dafa secret dafa nekk loo xam ne day ati ati la ay tey at at war ci am njaboot war ci am lu nekk jigéen jàpp naa ne bu gisee ku mu bëgg war nañ ko may mu sëy góor tamit même même que même que góor parce que lu muy yëg lu muy yëg en tant que amour moom moo ko xam lu muy yëg ci góor ki wala lu muy yëg ci jigéen ki moom moo xam ba tax na waajur yi nit sa doom bu bëggee kenn rek ko ko parce que ëllëg ci biir lu ci mënti am amaana ni moom moo jël décision ne kii la bëgg ñu may ko ko mais boo ko forcé nga may ko bëgg lu ci am si sa kaw lay dal te mën na ni ak waajur dafa fort mais tamit ak doom tamit dafa fort ba tax na yéen da yéen yéen da ngeen dem seet ku ngeen ku ngeen bëgg ku ngeen tànn ñu may leen ko kon ñu tamit bàyyi leen ñu vie suñu vie ñu xool ku ñu bëgg ñu may ko loolu laa loolu laa jàppee àdduna bi quoi parce que fii dara jarul métti parce que ëllëg si na laa may pari génn après conséquence yi ngeen daj sa biir tey yow yaa xam ba tax na bàyyi leen ñu tànn ñu tànn ñun ku ñu bëgg ak ku ñu doy ku ñu jikkoom doy ñu tax ko si farata yàlla ak sunu Muhammad ay géwal nag ak ay géer fii lay am yàlla xamul loolu comme que yàlla mi ngi sàq moom xamul lool asamaa ñun ñii nit ñu war a dugal loolu suñu bopp ñun mujj gi ñun ñëpp ñun ñëpp buñ doon dellu ci benn nit la ñuy dellu kon yooyu ngeen dugal seen bopp yi philosophie yooyu ngeen dugal seen bopp yi amul te gëm naa ni amatul wala wàññeeku na boobu baax a baax a baax bàyyi ñu tànnal suñu bopp kuñ bëgg ñu takk suñu bopp parce que sëy dafa yàgg te du benn fan loolu laa moom ci li may wax. waaw man sama mbooloo bi mooy que ni parents yi des amul bi am seen diggante da leen di ëpp doole ca ay géer ay géwél te boo xoolee ci alxuraan amul ay géer ay géwél wala ñu naan fii armeel géwél la fii armée géer la mais dañuy indi xaw ma tradition la xaw ma man daal doo comprendre mais dañuy fàtte sentiment yi nga xamante ne ñun ñoo ngi sentir foofu. merci. li gars yi naan Sénégal kenn mënu fi stressé wu normal plateau bi tamit kenn mënu fay def émission normale ndax ay élément perturbateur lañ yor Jackson nañ la bàyyi nga def émission waaye gars yi gars yi la jël nañ la acca <laughs> ñu doxal chers parents nañu bàyyi suñu ay doom ñu dund seen amour ñaar ña koy séddoo dañu war a nekk ñu bëggante ñaar ña koy séddoo dañu war a nekk ñu déggoo ñaar ñi koy séddoo dañu war a nekk ñu minante donc ñun ñi nga xam ne tey jii ni ñooy bëggante ci yéen lañ mën a basé wu pour ñu ba ngeen bàyyi ñu dund li nga xam ne moo di suñu amour kii géer la kii géwal la et après c'est quoi le projet kii am na kii amul est-ce que tey ki amul dafay dëkk ci ñàkk est-ce que ki am tey dafay dëkk ci am nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax amour impossible euh, Tigresse mu mel ni jàng li mu indi tey ñun ñëpp am nañ ci waaw daf ma daf ma daf ma touché daf ma touché franchement mu nekk lépp ci amour la rek ndax tey jii nee naa la lu gën di gën di xóot rek euh, plateau bi di gën di ala daw me sujet yi neex yi di gën di wàcc euh, mu indi ci amour impossible dañ koy dund chaque jour comme ni ma koy waxee rek ku nekk mën na ci def témoin sànq dama indi euh, façon bëgg yi mooy bëgg bëggante ak ki nga xam ne bëggandoo la waaye tey damay indi tànn ki ñu tànn ak ki nga tànn ak ki ñu lu tànnal euh, du benn ndax euh, ki nga tànn yow yaa ko tànnal sa bopp muy taw muy naaj alaakulli àll fu mu nekk danga ko fay fekk ki nga xam ne dañ la ko tànnal. mën nga ci bañ a sonn parce que euh, doo ci def la nga xamante ne bii moo la war danga naan bu ñëwee baax na su ñëwul baax na ki nga xam ne nag dañ la ko tànnal tamit moo ci rawati ndax yow bu boobaa sa yoon neew si voilà mais ci ki li nga xamante ne bii moom la moom la indi muy muy euh, parents yi problème de caste bi ndax benn timan dafay bëgganteeg benn Jengson ñu def ay at euh, ba Jengson mais nag parents yi lu ci ëpp duñ la wax dara Jengson day ñëw gaare 4-4 buy dem may yaay 50 mille buy dem may papa 50 000 duñ la wax dara mais il suffit Jengson ñëw ni damaa bëgg a takk ñu laaj ko moom lu mu doon. mu ne géwél la wala beneen xet bu man ci doon ñu commencé am nu ñu doxalee alors que ndax boo demee ñun ñëpp euh, ci yàlla la ñu jógee ca fa la ñuy dellu ndax boo demee ci li nga xam ne moom mooy cimetière di nga fa xàmmee bàmmeelu géer wala bàmmeelu géwél amul yàlla xamul géer xamul géwél doomu aadama la wax donc te man je me képp kuy yàq ñaar ñu bëggante noo xamoo li ci amul mosoo bëgg parce que mbëggeel ni mu neexee mbëggeel ni mu sensible mbëggeel ni mu fooree képp ki nga xamante ne bi yàq na ko rek mosoo xam lan mooy bëgg lan mooy parce que nit boo ko bëggee kenn saa wax da ko sàkk da ngay def dof ci moom yow dootoo ànd ak sa sago daf may dal dalay dal day dal keneen waale wax na ko yow booy lekk danga koy xalaat booy sangu da nga koy xalaat booy lekk booy booy lépp li nga def li ngay def sa àdduna rek danga ko ciy boole parce que rêve lay doon ci yow donc ñu ñëw nee la kii moom franchement mënoo leen a nekk yow ñu bëri xaru nañ ci ñu bëri dof nañ ci ñu bëri def nañ ci naka su dul noonu donc mu nekk li nga xamante ne bi phénomène bu doy waar la ci société bi mu nekk li nga xamante ne bi aussi war nañ ci bàyyi xel parents yi yenn yi aussi dinaan euh, di di problème am am problème koom-koom euh, ñi naan euh, kii bu la takkee wala bu lay andil warugar lam lay indil mënu ma cee def làng yaayam mënu ma teral mais lan mooy teral lan mooy alalu àdduna donc yow sa propre bànneex sa propre mbégte tax nga sacrifier amuru amuru sa doom donc moom ñu ngi leen fii jiiñ am jëkkër am ko waral seen parents yi ko teg ndax ki mu bëgg may ko ku mu bëggul ala kuli àll day fekk ji ka mu bëgg voilà loolu daal laaj teraanga bi gën a mag mooy ki jël xolam xol ak ni mu seeree xol ak ni mu toll ñëpp bëgg ko mu jël ko jox ko sa doom loolu defe naa ni teraanga mënu ko weesu te et dafa nekk loo xam ne sa me tient à cœur parce que ñun ñi nga xam ne ñoo di les ñun dañ koy dund ñun ñoo koy gën a mën a dund alors que géwal dafa nekk koo xam dafa noble kaay ma wax la lenn géwal a dàq bëggante ci Sénégal barki Cheikh Ibra géwal bu góor bi mooy gën a jongee sax géwal bu jigéen bi Gallem Mambay jooja fëri Issa jooja fëri jooja fëri Massa Ndiakhara Sakh Yaama Fall fier de l'être ñun ay géwal lañ donc dañ koy dund mu nekk loo xam ne dafa ñu metti en fait parce que géer ak géwal moom mooy lan cimetière u géer amul cimetière u géwal comme ni nga ko waxee te la xaram naa bani aadama loolu la yàlla wax ci li nga xam ne moo di alxuraan si sa kenn sax daal vraiment. dafa sensible waaw sa Kenzaade mbaa xam ngeen ni feeling la ba fees moom feeling la feese moom balaa mu laa tontu dina la may petit sourire bu ndaw Diengson. cee war a jàppale yi ba damay garder tur yi du ko wax parce que euh, joxuñu ma li nga xam ne moo di droit ma wax ko mais dama leen di expliquer benn anecdote boo xam ni fii la xewe woon dakaar benn benn milieu mais duma ko wax moom itam parce que euh, mooy loolu donc dafa am ñaar ñoo xam ni dañu bëggante woon histoire réelle ñu nekk fii dakaar di bëggante parent yi bañ leen maye ku jigéen ki am jëkkër ku góor ki am jabar mais ñoom ñaar ñu dem tukki Amérique ji moodu moodu mais bokkuñu fu ñu nekk kenn xamul ni sax ba xam sa morom moo ngi Amérique ku jigéen ki bi mu demee Amérique yàlla dogal mu divorcé ku góor ki tamit mu divorcé ñoom ñaar ñu dajawaat Amérique ba nii ni ñoom ñaar ñooy sëy donc am na loo xam ne bu ko yàlla defee nit mënu ci dara ala kulli yàlla Jengson loolu buñ ci naree xuus defe naa ni plateau bi dina xaw a changé ma bàyyi la nga tàgg mais bu buñ doonoon dëgg wala ñeeño sax yow lijjanti woo ko kon mu mel ni daal ñi nga xam ne amaana seen loxo dafa xaw a sutante ñu mel ni loolu la ëpp lu ñuy dal te nag euh, tey jii xale bu jigéen wéet na ak mu bëgg def loo xam ne wallaay bëggu ko woon alors que donc yu mel noonu rek moo ko teg donc parents yi nañu yërëm seen doom yi xam ne xol dafa sensible xol dafa oyof te xol dafa xat kenn rek nga ci mën a dugal parce que nit ku nekk benn xol la am donc kenn rek nga ci mën a dugal donc rek waaye ka nga xamante ni moom nga taamu ba dugal ko ci may ko ko mu sëy ndax sëy bu neex lay doon mais tey ji boo ko forcé ba may ko benn Richard bilaay eh, di nga di nga dëkk ci guuta dugg ci guuta goo nga xamante ne bii ah, doo xamante fan la koy lijjantee donc eh, suñu waajur yi daal nañu yërëmaat bu baax a baax am xolu yërmande ci ñun donte ñoom bëggante nañ ba am ñu ñun donc nañu bàyyi aussi ñun ñu bëggante ba am leneen ay jikko la ñuy tànnee doomu aadama mais du alal du li nga xam ni moo di ay teraanga Dieng Son euh, ma bàyyi la nga euh, tëj li nga xam ni moo di tey loolu nga ñu indi la lii lépp lu ñuy wax man tey jii da ngay gis koo xamante ni dañ fekkee ku baax mu ñëw ko koy may mm-hmm. mu nekk ne war nañ ko seetaan bu baax a baax baax mm-hmm. nga xamante ni mooy am mooy génie mm-hmm. parce que nit day bëgg nit da koy bëgg trop trop trop mën nañ bàyyante mais amul keneen ñu mën a nekk koo xam ne dëgg bëgg comme foofu mu nekk loo xamante ne war nañ koo indi bu baax a baax day laaj indi merci beaucoup Jackson. Sane bu baax ci équipe technique bi kuma fi rek nga ensemble bu rafet bo xamni sponsor dañu ko jox tay mais temps bi mo tax sax mënuñu ko solal mais tay dañu euh, présenter ko ko parce que doomu dëkk bi la di ñëw fi made in Sénégal la waye bala affaire yi di ñëw dañuy laal sensible dal ki nga euh, Kenza war ñu ko Kenza vous bayila nga wax une lan nga ñu nga wax ko internet. jigéen ñi la wala si góor ñi wala si belle-mère yi wala si belle-sœur yi parce que yaakaar naa doo xëy suba temps yi passé dama am na lu ma doon saytaan ñu naan léegi bis boo xëyee dañuy dañuy wàññi nombre de divorce bi nga xam ne chaque jour rek ak divorce may laaj phénomène boobu noonu lan moo ko waral pourtant man dama dama ne jigéen ñi pourtant sëy te yàlla tax rek lañ bëgg am na ñoo xam ne nii dañuy bëgg sëy te yàlla tax mais seen belle di duñu leen ko accordé am na ñoo xam ne tamit dañu bëgg sëy te yàlla tax mais seen jëkkër yi dañu leen takk ba pare à la fin war lay si kii mujj yi am. parce que yaakaar naa lu mel noonu dama gis ñoo xam ne dañu koo dund ma wax mhm. mu metti trop. Mhm. parce que yaakaar naa ne tey jigéen bu jugee si kër ya papaam ak yaayam dem sëyi mhm. euh, bàmmeel rek la jënd kër jëkkëram mais tey divorce bu bari na da gis xale yu ndaw ñoo xam ne ay 20 ans la ñu am 19 ans wala 15 ans bu boo nee nii femme de divorce yi dafa bari tey dangay tasee sa beneen moroom ngeen toog di waxtaan ni mu ne man femme divorce laa. léegi nag phénomène bi lan moo ko waral laay laaj si jigéen ñi la wala si góor ñi wala si belle-mère yi wala si belle-sœur yi hmm. yaakaar naa doxantu woon naa si mbedd mi am naa ay ñi nga xam ne interview woon nañu si hmm. naa moom ne yéem nañu lool de yéem nañu lool de mono ju jëkk ja dëgg yàlla suñu yaay ñoo fi nekkoon ak suñu maam yi booba say yombul say metti na lool ndax booba niñ daan sayee moo metti ndax dañ ko daan booleeg liggéey bu metti te boobu am-am bi sax demewul woon noonu waaye teewul ñoom tamit dañ daan jaayante di muñ di sëy ngir am lu ñu bëgg waaw ngir bëgg maanaam maanaam ndam ci seen ab sëy ak njaboot gu barkeel loolu nag sax naam ba tey mi ngi fi waaye dama xalaat ni jamono ju naqari ja tamit suyee na ci suyee na ci lool jamono ju naqari ji suyee na ci lool ndax dund bi seer na te am-am bi tamit jafe na te manam muñ gi nga xamni ñu jëk ñi fi nekkon non lañ daan muñé muñ gogu tamit yaakar na ni bu fi amé tamit wul ci ño xamni mom wax dëgg yalla alal ji lañ gëna jital waaw xam nga sey mom dafa neexul ndax di nga dem ba tollu ci benn moment bo xamni ni wax dëgg yalla da ngay sey rek ta yalla tax da ngay sey rek ta yalla tax waaw sey te yalla tax nag mom mo jafé lool amna fi nak new amu fi waye jafé na lool lool lool dal boko ko xol dal danaka ay benn benn benn lay doon waye amna jigen ñu nango sey nak Amna jigen ñu nango sey te yalla tax amna ci tamit goor ñi suñu mbokk goor ñi ño xamni wax deug yalla dañoo munta yor soxna ndax dañoo yaakaar ni mom bo yoré soxna ak bo yoragul soxna ño yem te demul nonu ndax bo yoré soxna amna yu bare bare bare yo xamni ni mom wax deug yalla waratu la te it maanaam war nga dab war nga war nga def le tout pour dabu ak soxna si nga nekkal budul dara sax ngir njabot ngeen sekk wax deug yalla moom daal doy na kéemaan loolu daal doy na waaral. bii tey ngeen dugg moom dafa doon thème bu am solo trop trop trop waaw ndax euh, wax dëgg yàlla sëy moom dafa bokk ci jaamu yàlla suñu doom yu jigéen yi dañ leen di ñaax ci ñuy sëy di fonk seeni borom kër surtout. tey wax dëgg jaaxal ma xam naa nag xëy na foto yi ak mbirum àdduna bi xam nga léegi photo ak moo yàq jamono sa morom muuroo toog foto photo yi rafet lool nga daal di yàkkamti profité na xaar photo ca fekk booba mbëgg ga sax nekkul ci yow ñun ñuy seen yaay dañoo sëy ba jeex tàkk ñu di leen ñaax daal bëgg ñuy sëy képp ku ci dugg ci sëy na nga ci dugg ci yàlla rek tax bañ caa dugg nag sax ngir intérêt wala ngir sama morom meeka takk nañ ko damaa bëgg ñu takk ma loolu moom wax dëgg yàlla sant ñu leen li ñu de bëgg daal mooy ñu dox ba dajeeg ku am yërmande góor gu baax gu am yërmande ndax dëgg la xaalis bi sax am na ci solo waaye nag euh, du yàggul waaw sëy rek yàlla tax loolu ñoom ñoo ko teg seen bopp laay wax ñoo ko teg seen bopp ndax maanaam yàkkamti ba dugg ci loo xamante ne bii ne gënalu la ak toppandoo ak comme ni ma la ko waxee àdduna bi ak foto yeeg naa ko dugal whatsapp ba ba tax nga dugg ci loolu soo paree nag léegi toog après dafay mel ni sax yow da ngaa dellu gannaaw ndax sëy ak ni mu baaxee ah nga xam ne macha allah kenn ku nekk da nga ñaan yàlla sëy am ci njaboot suñu borom barkeel ko ndax doom kat moom mooy bénéfice su sëy doom mooy bénéfice su sëy léegi nga dugg ci sëy tey suba nga bàyyi sa pertement la ndax góor ko moom. lu nekk a jafe ba mu des jabar kooku su wëlbati ko waate day am soxnaam yow miy jigéen nag yow yaay dellu gannaaw yow léegi nag ñu di leen wax ne nañu bàyyi loolu nañu seet góor gu baax gu am yërmande nee naa la toujours xaalis bi ci la bokk waaye amul solo tegandaay la rek ki nga xam ne nag mooy góor gu am yërmande gi mooy ki la yërëm comprendre nga ca am ci yow cofeel ngir ànd ca yàlla rek tax nga sëyal koy ca yàlla rek tax sama doomi jigéen yi sëy leen waaye sëy baax de sëy leen. <laughs> ma nit bu bëggee beneen ba na dikk ne ko bëgg naa la dama laa bëgg a takk ba mu ne man bëgg naa bañ takk ko ba muur ko mu sëy yaakaar naa bu kooku bëgg naa sëy buñ ko ca kaw ñu bàyyi ko fa nag buñ ko fa bàyyee moom dana sëy mais goro yi moom mooy loolu doy nañ waar njëkkee yi doy nañ góor ñi moom tam mooy loolu da ngay takk sa ba pare wàcc ko fa dem di gis beneen jigéen dem di ko doxaan di ko torturer kooku nan la fay tooge pour sëy léegi nag su leen amee jiñ ko xale jigéen ñu ne xale jigéen bëgg ñoo sëy fu ñu dugg ñaari fan ñett dañuy génn mais xale jigéen yi dëgg la am na ñuy def mais góor ñi moom tam doy nañ waar ah am na am na si ay góoram de ah, dëng nañ moom dëng def nañ ko trop. góor góorlu rek xam seen bopp xam ñooy kan ndax boo xasee jógee ci sëy nekkul da bon de da ngay gën a góor góorlu gën a taxaw gën a xam yaay kan xam ki nga doon loolu waaw lu man loolu laa xam waaye nag lu am daa ñu ne xale jigéen ñi dañ bëgguñoo sëy bëgguñoo tam yooyu man gëwuma ko man xale jigéen bëgg nañoo sëy ba bëgg a dee bu ñu ku sëy boo amee ku la tëye fa alors Seigne Ba merci beaucoup nee la euh, divorce beaucoup indé. indee sénégalais yëpp euh, dañu koy bëgg sénégalais yëpp am nañ ci seen leur mot à dire parce que dafa nekk instant bi nii Mon xam ni au milieu ci réew mi lëmbe ko lool nee la tendance mon nek actualité parce que gis nga les célébrités tey jii nii ku ci nekk moo ngi divorcé xamuñu causes yi nag Djiby les causes de la divorce. gaaw a taxé ak seen yi nga xamante ne dañuy jékki-jékki nit dañuy gisante ne vite fait am sànq yi mën ko wax amul bu noonu gisante ne faawante ne dem jàpp que ni amul la alors que non mu nekk loo xamante ne da nga war a toog la seet ko seggaat ko xool xoolaat balaa nga ciy dugg parce que seet bi doon a juum kasaar doon a juum nag loo xam ne aussi dafa xat parce que ñaan ñoo xamante ne chaque jour ñooy dëkk ñooy xëy ñooy yeewu dafa nekk loo xamante ne dafa xaw a garaaw quoi dafa garaaw moo tax dañ ciy képp ko koy def da koy bàyyi mu choisir boppam nga xamante ne moom mooy Titi waxoon na ko euh, bul ma tànnal waaye waxoon na ko li nga xam ne moo di fase fase euh, baaxul euh, ki nga xam ne moo di la tigresse dafa ñaaw lool sax. waaw kay ñaaw lool ndax yàlla wax na ko def na ko bind na ko maanaam muy divorce mais gënalu ko bu sañoon du am. donc mu nekk benn phénomène bi nga xam ne Sénégal tey mën nga xëy un mois doo dégg mariage mais chaque jour nga dégg divorce lan moo ko indi euh, bu ñu deelee tuuti ay temps ci ginnaaw suñu yaay yi wala suñu maam yi dañ doon sëy 50 ans de plus jëm kaw 70 ans de mariage mais tey euh, même pas un an même pas deux ans nga daal di ne divorce divorcé naa lan moo ko waral Euh, parce que divorce bu amee rek ci ñaari côté la muy ku góor ki ak ku jigéen ki du kenn rek donc mu nekk phénomène boo xam ne aussi mën nañ ko catégoriser fu ne comme ni ko Kenza waxee sànq boo demee ci côté belle-sœur yi mën nañ fa jaare boo demee ci côté belle yi mën nañ fa jaare boo demee ci côté góor ñi aussi mën nañ fa jaare tey nag góor ñi laay attaqué man ndax man je suis comme ni ma ko waxee tey jii benn moment day ñëw bëgg si la da koy jaral lu ne buy ñëw loué costume teg lu 4 4 teg daal sa kawas ya muy sol da koy loué andi ñëw xooy la xaalis xooy la am am di tiitaru boole ci taawi si ngoom tey jii boo demee moomam néeg ba muy fanaan moo kaña yaa fa bokk dëkk moo ginax yaa fa bokku dëkk bu la takkee nee la dama lay jëlal appartement <laughs> suñu PDG nee na boom laay waxal mais waxuma ak moom <coughs> mooma dig la nee la su ma la takkee dama lay jëlal PDG alors que bu xëyee yaayam moo koy jox ndekki donc mu nekk phénomène bi nga xam ne yow soo ñëwee tey gëm loolu gëm ne moomam mi ah vidéo luxe la am nga dugg ci ñëw ñu muur la mais boo ñëwee yow mi ñu muur ci guddi gi boo ñëwee boo xëyee da naan déedéet fii fii fan la parce que tellement da ngay découragé euh, di nga fa nekk nag pour quelque temps mais doo fa mën a continuer parce que euh, moom waxu la woon loolu te nit nag euh, bu la waxul dëgg rek ah faaw nga amee nag noo defee boo melee ni Tima boo mel boo ko bëggee nag mel ni Kenza xëy na mën nga faa toog mais boo melee ni benn Tima nag ah di nga am noo defee foofu divorce déjà dafay ñëw bu dee ci côté jigéen ñi am na ñoo xam tamit dama leen di daal Euh, sëyiwuñu dañoo seey dañoo seet si ndax euh, booy dem dañ la naan na nga seey mais sama genre yi lu ci ëpp dañuy xooli kër ga na na mu mel maanaam signature de contrat la ñuy def euh, ñu ñëwee gis ne carrément fii ñoom ñooy bëgg dañuy bëgg a diriger alors que ka nga bëgg wala ka la takk yaayam daf ko yar ci ndigal yow nag nga ñëw bëgg ne loolu yépp ci sa loxo lay tegu belle-mère ba bu pànkee ni yow ah defante day daal di dugg te defante bu di bu duggee rek euh, coono da lay diggal ba dèjà divorce mën na génnee foofu bu dee ci côté belle-sœur yi da ñëw ñu lay bundu xataal ne seen càmmeñ lu mu la defal daf ma koy defar bu ko defee coow am ne kur wala nga ñëw ñu croiser les bras ne maa doon def defatuma dara yow yaa léegi yaay mbaamu kër gi yaay yaay jeegu kër gi alors foofu boo mel ni timaa di defante histoire mën na fa jóge divorce déjà mën na jóge foofu bu dee ba tey ci àndandooy yi influence bi tey jii dangay ànd ak benn Kenza tabarkalla jëkkëram yàlla ma mënee ko gan maanaam nu am mu nu mu mel ci ma ñëw jëkkëram amul dara day taqalaatu mais di nga influencé Tima ba ne ko kaay ma dugal la si saa waay dina la mën a génn ci situation yi nga ne Tima bu doone dof da ciy dugg déjà divorce rek lay gis divorce tamit day am foofu donc mu mel ni fañ ko mën a dugal bëri na fañ ko mën a catégoriser bëri na donc tribunal tey boo xëyee dem sa wala lazim divorce cas de divorce h vingt quatre de divorce la ñuy traité donc lan moo ko war a indi euh, balaa ñuy dem ci solution yi itam euh, góor ñi ba tey laay dal ngir yàlla sooy naturel di leen yàlla jox <laughs> waxuma yow PDG de euh, di leen yàlla jox ni ngeen mel mais wane leen ko nit bu lay bëgg sincèrement da lay bëgg ci li nga mel bëgg la ci li nga am mais tey jii soo ñëwee wan ko li nga xamante ne bi amul rek soo melee ni tamit soo demee fekk ko fa da ngay gàddu say bagage donc bonjour bye bye nga leen di euh, wan.

ci riitambale mm-hmm. parce que yow yaa ngi da nga da nga opté pour sëy mm-hmm. lu la mën a def rek da nga koy da nga muñ mm-hmm. parce que yaa opté da ngay sëy parce que sëy dafa metti mais yaakaar naa ni tey belle-mère ak belle-sœur yi bu buñ ñu jàppee woon comme seen doom yi ñu jur parce que ñoom am na ay doom yoo xam ne jur nañ leen te dem nañ sëyi léegi tey ki ñëw si kër gi nga xam ni sa doom moo ko takk wala sa càmmiñ war nga ko mën a jàppale ba wuru fa am benn jafe-jafe mais vraiment doy na waar doy na waar euh, damay camper le décor ndax xam naa ni loola euh, buñ ko continuer Diengson euh, maa ngi ñëw ci yow mais li nga xam ni moo di divorce man li ma mën a wax mooy ñaari cause man am na yoo xam ni ça me tient mën na dural nii nag mais xam naa ni cause la parce que tey da ngay gis kuy sëy par exemple sama ñoom yum paañ nga xam ne dañoo bëgg ay yabaate da ngay gis sa benn cousine wala sëy wala sa mag wala dara ñu koy yab boo demee. fonkal ma sa goro na nga defar néegam sa goro na nga raxas ay tànkam sa goro na nga ko defal li nanga ko defal laa sa njëkke del fóot ay yéreem doomi njëkk ba damay mujjee ñëw ba ci moom ne ko umpaañ kii maison des esclaves la jëm wala day sëy mais barki Serigne Baawa kese am na ñoo xam ne nii loo leen mën a defal gisuñu ko. Mm-hmm. Mm-hmm. tey da am sa belle-mère boo xam ne nii tey boo xëyee lu mu bëgg si ngay daw. Mm-hmm. suba ba ngoon. maam naa nangam wala yaay nangam mais moom xoolu li nga koy defal. parce que liñ naan bëtu bañeel bu xasee ba dugg. dugg na dugg na. mënoo def dara dara dara lu gis. am na ñoo xam ne dañuy daw saf xam. safaanu marwa tey te pourtant du tax yow ki nga koy defal noonu gis ni lii nga koy defal nii. yaa ngi jéem lu nekk mais des fois da ngay dajeeg ay belle-mère yu tax doy des fois ñu tàppaas la wootee sa jëkkër ah mhm. diw de li ma def comprendre nga parce que sëy yu bëri mi ngi tas belle-mère yi si lay jógee ah mhm. parce que man dama ko gis am na ñu bëri ñoo xam ne nii seen jëkkër duñ fi nekk mais belle-mère yi ñooy wootee mhm. di wax seen jëkkër loo xam ne nii taxewul laalewul émigré yi

nga xam ni tey moom ngay bëgganteel tey boo demee sëy balaa ñu laa muri sax ku ne damaa mën naan nga ne ko waañ bi fii la nekk mhm. wala néeg mhm. na loo xam ne du kumpa mhm. te say kumpa moo ko yor buñ ah, li nga xam ne moo di ah, jeexal temps bi temps bi daf ñu xaw a xoj kenn saa ma bàyyi la nga tàggoo ak ci li nga xam ne moo di seen mbir tàggoo waale ak ñoom itam waaw mooma euh, damay wax rek ngelawaay comme ngeen li ngeen wax lépp si dépense bi ngelawaay permettre nga la waaye góor gi nga xam ne moo la takk indi la sa na la jàppale parce que yaakaar naa comme la ma wax jigéen nawle la soo ko takkee war nga koo sagal yéeg ko mais tey nga takk kenn genre tey même pas un mois nga ne ko fase naa la comme ni ko kii waxee tamit fase yàlla da koo bind mais moom la gën si parce que li ma wax rek tey jii bu sañoon buñ la xasee ba mu fa ngay jënd bàmmeel dañ fay ñaan yàlla màqaat fa mais nag di di ñaan yàlla daal nañu yàlla may na fa nga màkkaan fa divorce yi tamit bu fekkee ni cause bi si belle-mère yi lay doon wala si belle-sœur yi wala si góor tamit ñu jàppale ni ba affaire bi mën a wàññeeku tuuti di ñu yàlla tamit nekk internet kii bi yëpp di leen wax euh, vraiment kontaan nañ si yéen daal vraiment di nuyu sama yaay ju baax di kan jàll jéeri nee naa ko nekkul dara bàyyi ma lu amul moo tax di ko ñaanal yàlla gudd fan wér-gu-yaram ba moom Wow, kay euh, damay joxe sank rek sama solution moy li nga xam ne Kenza da ko wax parce que daf ma daf ma touché ndax sank rek ci kanamam euh, sama ben xarit ndeysaan dafa dafa dafa divorcé woon moom tamit comme noonu jëkkër ji da ko takk même pas deux ans mais jëkkër ji bi mu bëggee takk keneen daf ko daf ko jiiñ ne ko amoo mënoo am doom te ñoom deux ans de mariage lañ defoon mu nekk divorce bi nga xam ne dafa metti woon tellement foo ko takk weesu na ko donc sànq rek preuve bi ci kanamu Kenza mu may annoncé ne dafa am bébé ma koy ñaanal rek euh, yal na ko euh, yàlla def mag mu am ñam moom xale boobule donc mu nekk góor ñi tabaarkalla kenn mënta mucc ci moom kenn mënta mucc ci ñoom donc buñ la bëggee fase wala buñ bëggee dem bàyyi la mënoo def ñu dem bàyyi la bu dee ci côté belle-mère yi aussi euh, doomu jàmbur soo ko doomoo rek muy sa doom ndax tey ji na ngay traité sa doom na la leer ne noonu la ñuy traité noonu na na la leer ne la ñuy traité sa doom ci ci ci ci biti wala ci kër ga nga xam ne moom la ñuy sëy ñi nga xamante ne bii dañuy dem di sëy ji itam waxuñu ëttu kër waxuñu ëttu sëy waxuñu ko ñu sëy néegu sëy la ñu wax te néegu sëy dafa xat koo ci yaatalul rek du ca dugg donc nañu nañu fagaruwaat bu baax a baax ci suñu ay góor bu baax a baax ci suñu ay borom kër te a déglu rek nañu bëgg rek te yàlla tax jàpp rek bëgg sey rek te yalla tax mhm. ayca noonu la len di tàggoo nak di wax né ça a été vraiment un plaisir partager ak yene lepp luñu fi wax nak ci cadre bëggante la jëm ndax plateau spécial euh, Saint-Valentin lañu woté lepp lu ci jup xam leen ne ci yalla suñu borom la lepp lu ci dëng xam leen ne nit moo matul ci ñun la di leen jox dig daje ci yenn ay rubrique ci yeneen ay plateau ci Kifne TV di jaajëfal bu baax a baax sama yaay ji maman Aysatu Dieng jeg saalak waynde waynde ku dul waynde ku wendee la tudd tabarkàlla sama yaay ji boo takkul oor takkoo ngalam takkoo jamaa lépp ngir bégal sa njaboot moo tax di la wax ne yal na la fi yàlla bàyyi ak jàmm nga dund ba fekkee sa njariñu doom di jaajëfal bu baax a baax suñu PDG borom Kifne TV ndax xataluñu benn yoon euh, suñu ñëwoon mu tëjal ñu kanam kon dina am ñeneen nu ñu defee waaye tabarkàlla dafa ñëw mu yaatal ñu dalal ñu euh, tabarkàlla allah macha allah di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ne fekk na len kifni TV ñu nek une famille aussi ma ngi len di remercier di bu baax a baax di len wax ne nonu la rek jàpp teewoo bàyyi na xëcc bu daggul dina aksi mbaa mu yendooti di jaajëfal bu baax a baax Kenza aussi mom tamit euh, tabarkaal ken du mom ñewna naa euh, mu xëcc ma taf ma ci bopam Momar merci beaucoup Jeng Son sama doomu bàyyi la koku duma ko booleeg dara tabarkaal macha allah di len remercier bu baax a baax encore une fois di wax ne ça a été vraiment un plaisir euh, partager ak yéen waaw kay robb nag tabarkalla sama sama tailleur bu baax bi bi nga xam ne lu mu ñawul baaxul lu mu daggal itam rafetul euh, moom dafay ñaw ba ci yàgg ciseau bi damm euh, Momar sama se sama tailleur bi dafay ñëw ba si yàgg ciseau bi dàmm mu jël loxo bi di ko daggee xanaa du kooku la euh, tabarkalla waaw kay foofu la yem Chérif di suñu euh, directeur programme nee naa la plateau bi bu yembee dañu koy euh, gërëmee waaye li nga xam ne moo di déco bi li nga xam ne moo di cadre cadrage bi euh, ki nga xam ne moo di Alamine dañu koy gërëmee moom nee naa la bu dul woon moom daal tubaarkàlla plateau bi tàkk ki nga xam ne moo di Nitro ñu koy bëgg bu baax a baax mu ngi woon ci caméra yi am booy moom tamit mu ngi woon ci caméra yi bëgg ko bu baax a baax Ahmed Diop Fall mbëkk kontaan ci yow bu baax a baax yooyu itam bëggee nañ la Diop Fall waaye ki nga xam ne moo di euh, suñu stagiaire bu bees bi damaa jàpp muy turam frère kontaan ci yow euh, bu baax a baax mm-hmm. ki nga xam ne moo ma solo tey jox ma pile bu rafet bi ci suma anniversaire ne ma euh, da koy sol plateau boo njëkk am dama koy bëggal bu baax a baax suma yaay la suma tante la Fatou Ndiaye lañu ko wax nee naa la Fatou Gueye seen wala fatu Aada lu ma ci wax baax na chéri Aada Mbaye rakki Ndeye Mbaye ki nga xam ne moo di yaayu Diarra ak Ahmed ki nga xam ne moo di yaayu Papa mm-hmm. baax ci man gën ci man yow nga xam ne moo di Ada Thiam ki nga xam ne moo di Logay bi nga xam ne moo ñu dalal moom amuñu fayam nee naa la ko diriger yow ko diriger yaa war a njëkk a béy balaa kenn di benn mhm. ku bëgg pop les plus les plus pop du mhm. Sénégal mhm. fii la ñuy defaree seen kanam les plus coquettes du Sénégal fii la ñuy defaree seen kanam les plus charmantes les plus belles dañuy ñëw fi nga xam ne moo di chez Logay fii ci arrêt 54 ma waxati ko Kër Massar M3 arrêt 54 boo ñëwee di dem ci clinique Yaay bi chez Nogay la di wax Nogay man dama ko mujjee bëgg daal. Mhm. Nogay je t'aime yow dama lay wax joyeux Saint-Valentin ndax Nogay daal je t'aime ñi nga xam ne euh, yéen laa bokkal plateau bi yéen tamit euh, kontaan naa bu baax a baax. Mhm. sama Valentine bi euh, Sister Kenza moom neexal bi la Tigresse moom itam neexal na émission bi. Jenson yow bu baax a baax di leen wax ni kif nee la woon mhm. bonne fête yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy siiw. amoon dafa neex te nopp ki la nopp dara dàqu. jàmm ak jàmm nañu yàlla sàmm. ñu nekk ci jàmm ba beneen plateau ak jàmm xalaat tell me wax ma dis-moi xalaat